ñu ne koom nga jëndee ci prix fii ci Dakar dinañu xam ne Dakar lépp la dëgg waaye tey jigéen ñi ñoom àndandoo toute la coalition war na ne ñu engagement bi pour ñu ko jàppale la kenn mu koy expliqué. yéen jigéen ñi Dakar da ngeen soxla bu ngeen bëggee financement dem en réalité dans les institutions mais des institutions accompagnées par votre ville. avec un financement adapté des fonds de Dakar Dakar boobu moom lañ leen bëgg a defaral tey moo tax quand je vois de Dakar ñu taxaw tey comme un seul homme taxaw ne ma le 23 janvier 2022 danañu la jox Dakar dama naan alhamdulilah parce que le Dakar réel est là devant moi le Dakar réel ñu ngi nii toog. Il y a yor famille il y a yor xale il y a yor a soxla maire bu préoccupation mooy mu taxaw xool engagement et à mon tour je prends l'engagement devant les et les dagarois ici et maintenant devant les femmes de d'être un maire exemplaire, un maire qui va cultiver l'exemplarité et la responsabilité C'est cela que je attend. Bon, bés Bonne. rafet na ba pare yaakaar naa ne tey ku gis lii di nga xam ne ñi jot pour dire Dakar en 2022, a été responsable 19 communes ñoo xamante ne ay responsable rek ñu mat ñoo fa ñoom ñoo taxawoon pour bëgg a jël dëkk bi defaraat ko programme boobu nag bu ambitieux parce que bu ñu koy présenté Dakar yaakaar naa ne da nekk bés boo xamante ne bés bu mag la Dakar xam ne benn ñaata ak sam ñaata bu wóor nañu. 残念ながらそのまま座られるように。 obrigado, Adriano